àjjana kon ku dem àjjana yàlla te da koo xamoon démb te da koo bind ku dem safara yàlla te da koo xamoon démb te da koo bind waaye xam-xam bi xam-xamu inkishaaf la du xam-xamu jabr xam-xamu xam li na am ëllëg la du xam-xamu force si tey nga def nangam mbind mi itam day xool day xool dafa xam li nga nar a jëf ak fu mu nar a jëm ci sa coobara jëf nga lu baax yaa ngi góorgóorlu ci jëfe alquran ak sunna te loolu mooy yoonu àjjana yàlla dimbali la ca loola daal lay bind ci waa àjjana loolu la yonent bi jàngal saxaaba yi noonu la salafu saalix gëmee ab dogal bu ko defee ñu gëm ne kon lépp lu xew suñu borom yàlla moo ko dogal waaye loolu dindiwul ci maandu tak yàlla ga dara dara dara dindiwul ci nammeluk sama borom yàlla ga dara dara dara dindiwul ci coobareem ga dara dara dara dindiwul ci xikmaam ba xam-xam ba dara dara dara loolu dégg nañ ko bu baax a baax ka am ak dégg nag mooy ka ko yàlla may yàlla na ko yàlla may su ko defee nit ki moo jëf ay jëfam ci kaw ak sabab loom te nit ki itam li mu jëf moo ko namm moo ko taamu moo ko jéem yàllaa ko ko àggalee ci kaw jéem gum ko jéem waaye moom moo ko jéem ci kaw coobareem mu ngoog su ko defee tanaaqud damaa bëgg a laajaat laaj bi ma bi bi ma bi ma laajoon te mu jaaxle woon maa laajaat ko léegi ñu jëkk ña xadari yuun yi dañoo wax ne yàlla dogalul jëfi nit ki lu nit def mooma mooy tax àjjana ak safara mën a nekk maandu jabri yuun yi wane déedéet lu nit def yàllaa ko dogal li neex yàlla rek kay mën a am lu dul ab dogal du mën a am ma ne leen yooyu ñaar benn wéru ci li wér moo di lu am nit kee ko jëf yàllaa ko dogal ndax loolu li mu amee leer na ndax contradiction wala tanaqut amat na ci ñaari pas-pas yi ñoo war a ànd leer bu baax a baax yal na ko yàlla leer suñuy bopp kon nag borom bi tabaraka wa taala bi mu daataan bind jaam ñi la xamoon jaam ñi ñëpp jaam bu ci nekk fu muy juddoo kañ lay juddu nu muy juddoo nu muy tudd nu muy mel ci ban barab ci ban dëkk ci ban waxtu ak ban minute mu ngoog loolu lépp suñu borom yàlla da koo xamoon démb tey door a ñëw nam ko xame woon ne la xamee ne jaam bii bu juddoo moom day tànn ak mbaax na meetar ba xamee ne élève am boobee doon jàmbaar lool te njàngama ba mu demee day réussite noonu la yàlla xamee ne jaam sàngam ci jaam bu ne ci jaam yi moom day tànn ak baax jaam sàngam nag day tànn ak mbon ci coobareem kenn ku nekk la yàlla xam ne da nga ko tànn mu bind la loolee ci la waxi maxfuus te boo jógee yaa koy tànnal sa bopp ci sa coobare ndax da nga am xel ndax da nga nekk xel ndax da nga am mucc ayib da nga am wérgu yaram wala da nga nekk ku xiibon ndax da nga nekk ku baax wala da nga nekk ku bon loolu lépp suñu borom yàlla da koo xam bind ko bu ko defee jaam bi nag ñëw defal ko boppam ci wax mu nag al aqdaarul kawniya al aqdaarul kawniya mooy maanaam loi naturelle yi ku gudd ak ku gàtt ak ku ñuul ak ku ku xees ak yooyu bokkut ak xeetu ñaareel yi nga xam ne doomu aadama am na ci wàll xeetu ñaareel yi doomu aadama am wàll moom la doomu aadama di defal boppam te mooy jëf yu baax mbaa jëf yu bon bu ko defalee boppam ci coobare ak boppam yàlla nag jaar te yóbbu ko àddina ci maandu teen mu ngoog wala mu jaar te yóbbu ko safara ci maandu teen loolu mbokki jullit yi mooy maanaam gëm ab dogal ci ni mu ñëwee ci mu ngoog bu ko defee nag kon déggin yi nga xam ne moom la ñenn ñi bëgg a déggee aslëf ci njàng da cee nekk nii nga xam ne ni la mag ñu déggee woon jàppe woon noonu loolu lu ñu xam la lan yusibanaa illa ma kataba allahu lana dara duñu dal lu dul la yàlla dogaloon ci nun te loolu itam gis nañ ne bokk na ci ay njëriñam ñeme aku fit saxaaba yi ñoom pas-pas yi gëm yàlla yi daawuñu ko foye daawuñu ko laye nun dañ koy foye di ci werante werante bu amul njëriñ ak di ko laye di ko laye mooy lan def bàkkaar sàggan lool waa joo xam ne ji daa sàggan sàggan di dem jàkk ja mukk bu jullee bala moo jullee ci mu yàgg mën naa ma nga takk ab lam bu réeréerée mën naa ma nga takk ak ceen lépp lu sayyidina Muhammad di tere moo koy def sallallahu alayhi wa sallam lépp lu dëppoo ak alxuraan suñu waxu ca dara nga dajeeg moom di ko yedd mu sàggan lool mu ne la xam nga lan la man nii ma mel yàllaa ma li melal bàyyi amul ñu waxe noonu ñooñu dañuy layee ab dogal saxaaba yi daawuñu laye ab dogal dañ ko daan jëriñoo saxaaba yi ñoom dañ daan dégg ci lu am yàlla dara munta am dara yàllaa ko amal lañ ci daan dégge mooy kon ndekete du ma dee te yàlla rëyu ma ginnaaw duma dee teel réyu ma kon jarul may ragalal jiyaari fi sabilillah saxaaba ba da daan way buñ dee préparé ngir jiyaari ëllëg muy wax fii ayi yow mayya min al mawti afir a yowma lam yuqdara am yowma qudir fi yowmi lam laa quddira laa arhabuhu wa yowma wa yowma quddira laa yunji lxadar fi yowmi laa quddira laa arhabuhu wa yowma quddira laa yunji lxadar mu ne ñaari fan yii ban la ci war a daw dee ndax bi yàlla bind ne du dee ndax ci la war a daw dee wala bi yàlla bind ne dina dee ci la war a daw dee booba dañuy préparé di takk fas yi ak gëléem yi yor jaas yi ak xeej yi di xeexi di xeexi te kenn ku ne gis nga ba tàyyi nit xëyee këram dem xeexi dee fa xeex ci yoon yàlla dee fa saxaar ba moom sukkandiku jëriñoo gëm ab dogal ne damay laaj ba xam tey jii faw yàlla bind na dinaa dee wala bind na du ma dee bu fekkee yàlla bind na ni dinaa dee ndax ñàkk dem geer dana ma tee dee su fekkee yàlla bind na ne du ma dee ndax man mu dem ci digg bal ya dana ma tee dee dama dana ma tax a dee noonu lañ ko daan jëriñoo mu jox leen aw fit ñu daal di war seen fas jël seen ngannaay dem xeex ànd ak ñeme ànd ak jëm kanam du ñu yox yoxi du ñu daw du ñu dellu gannaaw buñ ca deeyee ne dogal baa woon mënul woon a ñàkk bu ñu dellusee ne lii moom laa xamoon yàlla lii la dogaloon ci man faw sama fan des na noonu la ko saxaaba yi daan dégge waaye ñoom daawuñu ko foye ak di ko laye comme nii nu koy defe amma nun dañ koo foye laye ko comme ni nga xamee ni moom la wax léegi bu ko defee boo defee solo bon askan ko ci yàlla waaye nag kon aka neexoon lu baax lii tam nga askan ko ci yàlla waa ji nga xam ne ji bu defee ak càggante boo ko waxee mu ne yàllaa ko dogal waaw waa jooju yu bonam yooyu muy jiiñ yàlla ay yu baaxam ndeyam dana maye la muy maye ndax nangu na ne yàllaa ko dogal moom amu ci tuyaaba am da cee bëgg tuyaaba la muy julli la muy woon la mu cee dana kës ñëw ak sàgganteem la muy topp yàlla ak la ci nekk ci ay sàggante waaye daal topp na ko yàlla ndax da caa bëgg tuyaaba am day wax ne yàllaa ko dogal soxla mu ci tuyaaba ginnaaw da cay soxla tuyaaba kon nag jëf yu bon yi muy def nag ni muy def du ci am bàkkaar waaye waaye ab laykat moom day wut nu mu dawee ba tey itam waa jooju nga xam ne dinaan yàllaa ko dogal am na benn bis ma ci waxtaan ak kenn ku bokk ci ñooñi mu ne ma sëñ bi gis nga man nii ma mel yàllaa yàllaa ko dogal ci man da nga koy nangu rek bàyyi ma nii ma ne ko kan nettali sa montre bii nga takk jenn waaye ñëw sàcc ko sàcc ko dem ak moom nga wër a wër a wër a wër ba sonn door koo gis nga gis ko nag jàpp ko bëgg ko yóbbu police pour ñu def ci moom li yoon wax mu ne la sa montre bii ma sàcc yàllaa ko dogal yàllaa dogal càcc gi bàyyi ma ak montre bi ko dem ndax li dogal yàlla la da nga nangoo mu nakk nakar na ko doon nangu lu tax nag kon nga bëgg a rattax yàlla loolu te yow nangu woo ku ko jëflante ak yow yàlla moo dogal lépp waaye wala fi dañoo wax ne ndogalu yàlla goo gis tànk lan ah tànku borom nga tànku jaama nga loolu lépp wala la de wala fi seeni lépp mat nay jàng am na ci loo xam ne am na aslaf ci tawxid nee nañu yàlla yàlla bay sa tool luy maanaa yàlla yàlla bay sa tool mooy maanaam bul tëdd rek wax ne lu am yàlla sama wërsëg yàllaa ko yor ba tax nga bañ a bay demal ruuji te bay soo bëggee am loo dunde yee soo ko defal da ngay deekul xiif kat yàlla yàlla bay sa tool mu ngoog ba tey bokk na ci mafahim yi nga xam ne njàngate am na ci ñi nga xam ne ñii dañuy wax ne loolu yàllaa ma ko sant yàllaa ma ko sant yàllaa ko dogal ci man wala yàllaa ma ko sant sama borom yàlla tontu na leen nee na inna allaha laa yaamuru bil fahsha ataquluuna ala allahi ma la taalamuun yàlla kat du santaane lu ñaaw yàlla du santaane lu bon yàlla day tere sàngara ba noppi di la sant nga naan ko déedéet yàlla day tere rey nit ak njaaloo ba noppi di la sant nga def ko déedéet yàlla santaanewul dara lu bon inna allaha yaamuru bil adl wal ihsan wa itaai dil qurba yàlla la mu santaane mooy maandute yàlla daa santaane ku maandu daa santaane kuy def lu rafet di wax lu rafet daa santaane kuy jox mbokk yàlla jëf yu rafet yu baax la santaane qul amara rabbi bil qist yow Muhammad yow daaci bi sallallahu alayhi wa sallam neel sama borom yàlla kat ak maandute ak njub ak lu baax la santaane mu ngoog su ko defee acheytaan nag moom mooy santaane lu bon acheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla sama borom yàlla nee na suutul baqara seytaane da leen di da leen di ragalloo ak ñàkk leen ko dig seytaane da lay wax boo joxee li nga am da dootoo am dara da ngay ñàkk bu ko defee doo joxe ci yoonu yàlla doo jox miskin doo jox sa mbokk seytaane da lay dig ak ñàkk te seytaane da leen di sant jëf yu bon yàlla nag moom da leen di dig njëggal ak ngëneel te yàlla ku yaatu yër mën na def ko am xam-xam la nu nga kon nag ñàkki teggin weeseetul jëf sa jëf yu bon ba noppi di ko jiiñ yàlla naan yàllaa ko dogal ci man mbaa nga naan yàllaa ma ko sant am na it ñoo xam ne dañuy latoo lu ñuy tudde iradatullah nammeeluk sans borom yàlla ñu ne daal yàlla moom moo ko namm ci nun nu nga lu am lii am ci man yàllaa ko namm nu nga yàlla ku mu namm nga jub faaw nga jub loolu yéen sax xam ngeen ko loolu itam bu ñëpp jàppee kon yonent yi luy doon seen rôle yonent yi dañoo war a jàngale ak njub yar ci nit ñi teeta leen ci bu ko defee kon yow mi ne lu am namm namm yàlla damay toog du ma def dara kon boo sàgganee bu ñëpp defee ne yow ñëpp dañu daal di nekk ci lu bon namm namm ak suñu borom yàlla yàlla li mu namm mooy bàyyi la nga am xurriyatul ixtiyaar munoo def nag munoo dindi it waaye man ngaa sabablu boo sababloo nag loo sabablu rek yàlla dogalal la loolu nu nga su ko defee kon werante yu demee noonu day ay werante yoo xam ne jullit ñi war nañ ci bàyyi xel war nañ ko moytu amul benn njëriñ war nañ ko bàyyi werante ci lii ma def yàllaa ma ko sant ak yàlla santuma koog yàllaa ko dogal ci man ak yàllaa ko nar ak loolu lépp ay waxi caaxaan la yoo xam ne bëgg koo laye la te bis dina ñëw bis dina ñëw boo xam ne bii lay yu mel noonu dafa jëriñ dara sans borom yàlla ñu ñett li bu àllaaxiraa bu àllaaxiraa bañ a dem àjjana dem àjjana ñay dem safara dem safara sans borom yàlla ñu ñett li ay nit ñoo xam ne dañuy taxaw ci buntu safara seen ay nit ca biir safara ñuy lakk wala ay malaaka ay malaaka seen ay nit ci biir safara ñu lakk nit ña wala malaaka yooyu di laaj waa safara naan leen maa salakakum fi saqar waa ji nga xam ne daa nekk ci àdduna si fonkul julli fonkul woor fonkul jaamu yàlla ma nga takk lam bu rëy ma nga yor ab megoom wala gënnam di tox fu sàng la nekk mu dem fa nekk ci ay sàgganteem bu àllaaxiraa yàlla da koy yóbbu safara tey da nga koy wax tee ngaa góorgóorlu tee ngaa jéem a jaamu yàlla muy lay ana lu muy layee lii ma mel yàllaa ma ne melal bu àllaaxiraa bu ko yàlla ne dëw ci biir safara malaaka yeeg nit ñi di ko laaj yow ana lu la tax a dem safara du ni mukk yàllaa ko bindoon ci man maa salakakum fii saqara am na lu leen tax a dugg safara am na lu muy tontu tontu lu wóor tontu lu jub lam naku min al musalli danoo bokkul woon ci ñu fonk julli wa lam naku nutimu al miskin te daawunu leel miskin wa kunna naxuudu maa al xaaidin ñun danoo àndoon ak fokkat yeeg caaxaankat yi di caaxaan rek loolu moo ñu yóbbu safara gis ngeen ko foofa tappale amu fa ay lay caaxaan amu fa kon nag jéem a góorgóorlu léegi lay wi wenn ci fii ak ca foofa nga góorgóorlu fii ba def li yàlla santaane ndax ëllëg ma dem àjjana moo gën ngay lay fii ba àllaaxiraa nga dem safara bu ne laa jëndee door nangu dëgg mu ngoon bu ko defee mu daal di nekk ay reconnaître gu saay-saay bi reconnaître ni moom li ko tax a dem safara ay caay-caayam ak càgganteem waaye su boobaa lu muy jëriñati ci beneen aaya suñu borom yàlla nga ne nettali kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum xasanatuha alam ya'tikum nadir qaalu bala qad ja'ana nadirun fakadabna wa qulna ma nazzala allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir sama borom yàlla nee na bu àllaaxira bu ñuy fab nit ñi di tabbal safara léeg-léeg ñu ne dëwu nit ne dëwu keneen ne dëwu keneen malaaka yi leen mooy yéen malaaka yi yéen di laaj mooy yéen mooy yéen lu ngeen xewle mooy yéen lu ngeen doon sàggan ba ba ba ba leen indi safara xanaa yéen ay yonent ñëwul woon ci yéen ah mu nga xanaa yéen ay yonent ñëwul woon ci yéen ñu ne ah kay ah kay wallaay ay yonent ñëwoon na ci ñun ay yonent ñëwoon na ci ñun kullama ulqiya fiha fawjun saa bu ñu saa bu ñu sànnee mbooloom ay yéefar ak i tooñkat ci biir safara saalahum malaaka yi laaj mbooloo yooyee xasanatuha malaaka yi laaj malaaka yi nga xam ne ñooy bëkk néegi safara ñuy laaj nit ñooñee alam yatikum nadir xanaa yéen ab yonent buy woote ci yoonu yàlla ñëwul woon ci yéen xaalu balaa ñu ne ah kay yonent bu ñëwoon na wallaay leeralan na alquran ak sunna qad jaana nadirun fa kadab na nun ab yonent ñëwoon na waaye dañ koo weddi woon dañ koo weddi woon wa qulna ma nazzala allahu min shay nu wax ne yàlla wàccewul dara in antum illa fi dalalin kabir ñu ne kon ci ak njub ñu di leen sayite di leen reetaan di leen wax yéen da gën a sànku sànku gu réeré loolee nag suñu weddi googee moom tax a dem safara te kon nag mbokkum julit mi yow miy sàggan di def ay caay-caay ak njombe amoo looy layal lu dul yàllaa ko nar ci man na nga xam ne dees na la laaj ëllëg ndeem da ngaa dem safara yal na nu yàlla musal ci dem safara buñ la laajee doo wax mukk yàllaa ko dogal doo wax yàllaa ma ko sant la ngay wax mooy damaa sàggu nañ ci àdduna kon nag farlul tey balaa càggantee ñëw loolu moom la ñu war a jële ci gëm ab dogal subhanahu wa taala su ko defee ñu ñëw ci ay aaya alquran yoo xam ne léeg-léeg ñenn juum ci léeg-léeg ñenn juum ci di ko firi aw firi win woo xam ne day dëppoo ak seen bànneex alquran aaya alquran bu mu mën a doon moroom jaa koy firi mboolem firi yi ni alquran yi bi ci gën a wér ndegam moom rek a wér sax mooy aaya ji nga firee aaya wala aaya ji nga firee xadis bu wér bu jóge ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla dafa wax ci suuratul baqara wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim yàlla mooy gindi ku ko neex jëme ko ci yoon wu jub samba boy ba di ko latoo naan man kon nag ni ma mel yàlla moom la neex yàlla ma gindiwul ginnaaw yàlla gindiwu ma moo tax aw ma njub te yàlla neex ko neex lay gindi ci suuratul naxl suñu borom yàlla wax walaw shaa allahu la jaalakum ummatan waxida walakin allaha yudillu man yashaau wa yahdi man yashaa sama borom yàlla ne bu neexoon yàlla yéen nit ñi ñëpp yéen waa àdduna ñëpp mu def leen mel ne mbooloo ñëpp gëm ñëpp gëm par force ku mu neex ku mu naqar waaye yàlla day sànq ku ko neex jubal ku ko neex yal na yàlla jubal aaya yooyu ak yi ni mel ñenn ñi dinañ ci faral di laye di ko faral di firee aw firi win woo xam ne daa gën a noppale ci ñoom moo tax waaye dañuy jël yeneen aaya bu fekkee sa borom yàlla daa wax ne yàlla day jubal ku ko neex bu fekkee sa borom yàlla daa wax ne walakin allaha yudillu man yasha yàlla day sànk ku ko neex dañuy laaj ba xam waaw ana ku ko neex kan moo ko neex kan moom la neex yàlla pour mu jubal ko ak kan moo neex yàlla pour mu sànk ko yàlla daa tontu ci laaj boobu ci yeneen aaya boo demee sans borom yàlla ngay wax naan wa maa yudillu bihi ba mu ne gannaaw bu mu ne yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran yàlla nee na alquran ji dinaa ci gind ñu bari sànq ci ñu bari dana wa maa yudillu bihi illa alfasiqin yàlla nee na alquran ji du ma ci sànq kenn lu dul say say say say mu mel ne dañ ko ne waaw ak caay-caay mooy lan sans borom yàlla ndax laaj bi gën a leer ak caay-caay mooy jàdd ndigali borom asamaan ak suuf di def leneen alladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqihi wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yusal wa yufsiduuna fi l ard ulaayika hum alxaasiruun saay saay si nga xam ne dañuy fecc ay kóllëre yàlla gannaaw bu ñu ko fasee ba mu dëgër saay saay boo xam ne bii kóllëre gi mu séq ak yàlla da koy fecc kóllëre gu mu séq ak nit da koy fecc koo xam ne kii du mu dal kóllëre te itam ak bokk yàlla da koo jokklu moom da koy dog koo xam ne kii da koy def ay tooñ ñooñee ñooñu perte ñi sans borom yàlla na ñooñu da leen di sànq ci suuratul baqara ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar sans borom yàlla bi mu nee mooy sànq ku ko neex daf ca dafa wax ci suutu ibrahim aaya ñaar fukk juróom-ñaar wa yudillu llahu zalimin wa yafalu llahu ma yasha wa yudillu llahu zalimin mooy yàlla day sànq tooñkat yi yàlla day sànq tooñkat yi ndekete kon ku sànq yàlla la sànq waaye nag yàlla du xool nit ñi rek ne eh diw yaag diw ak diw ak diw da ngeen di sànku diw yaag diw ak diw da ngeen di jub déedéet yàlla da lay xool nga doon ab tooñkat mu sànk la yàlla am na atte bu dog mooy ab tooñkat da koy sànk def ko lu baax da koy gindi kon nag soo bëggee yàlla sànk la wala nga bëgg yàlla gindi la yaa xam sarablu mu ngo ci beneen aaya kadalika yudillu llahu man huwa musrifun murtab xaafir fanweer ak ñeent mu ne noonu la yàlla di sànke képp koo xam ne kii dafa ëppal ci ay bakkaar koo xam ne kii day sikki sàkk ci li ma wàcc yàlla day sànk koo xam ne kii def katu bakkaar la ci beneen wa ma kaana allahu li yudilla qawman baada id hadaahum xatta yubayina lahum maa yattaquun ya yàlla ni yàlla ni yàlla jombante naag di sànq aw nit gannaaw bu mu leen wane ak njub ba noppi yàlla wane na ak njub nit ki jëkk a am moo jëkk a nekkoon yonante mooy aadama ak njub diis na ba noppi ku ñëwati am nga diina joo war a topp ñun diinay sayidina muhammad la ñu war a topp diinay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mooy alquran ak sunna nee na yàlla nee na nag yàlla day yàlla day du gindi aw nit ba noppi di leen sànq di leen sànkat gannaaw bi ndare du da leen a jëkk a leeralal la ñu war a moytu ak la ñu war a def bu leen yàlla leeralee la ñu war a def ak la ñu war a moytu ñu jéem a moytu la ñu war a moytu def la ñu war a def yàlla daal leen di gindi buñ deful loola xanaa def yi fi cànkute yàlla daal di leen di sànk wa ma zalamahum llahu walakin kaanu anfusahum yadlimuun moo tax sama borom yàlla ne ñamu sànk yàlla ñamu sànk ak ñamu yóbbu safara yàlla tooñu leen waaye ñoom ñoo tooñ seen bopp ba ñu demee di def li tax yàlla sànk leen mu ngoog dalika bi annahu kaanat taatihim rusuluhum bilbayinat fa qaalu abasharun yahduunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna allah wallahu ganiyun hamid saa borom yàlla boo jubee def lu baax yaa koy jëriñoo yàlla deewul dara tam njub soo dëngee du wàññi yàlla dara yaa koy xalaloroo bu fekkee góorgóorlu ko nag yàlla jublu ci yow gindi la teeta la boo saay saayee du mooy yàlla yàlla doylu wul si la teg la fële nga daal di sant mu ngoog moo tax suñu borom yàlla wax wa yahdi man anab yahdi man anab mooy lan yàlla ba mu ne yàlla gindi ku ko soob ba sayiduna muhammad jàngalee junit ñi ñuy wax naam man yahdihi llaahu fala mudilla la ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq kon yàlla mooy gindee yàlla wax na ki muy gindi mooy kan yahdi ilayhi yàlla dana gindi jëme ci moom man anaaba ka wëlbatiku jëm ci yàlla alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dicrillah mu mel ne dañ ko ne yàlla ki wëlbatiku jëm ci yow kana mu ne mooy ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te itam seen xol day dal ci tudd yàlla te dëgg ci tudd yàlla xel yépp di dal ak xol yi sama borom yàlla dellu wax ci suratu al ankabut aaya juróom benn fukk ak juróom-ñeent إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم من وقت سابرم يلا ني نيغا خامن گم نانيو يالا تاي جيف اي جيف يو رافت يالا دا لين دي گيندي دا لين دي گيندي كي سبب سين گم گنو گم لولو عنكبوت لا واي عنكبوت ci sootu ci ankabut juróom benn ko juróom ñeent dafa xam ne walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne ñi ngi sonn di góorgóorlu pour jéem a jaar sama yoon man yàlla faw ma gindi leen teg leen ci yoon mu ngoog fa in aslamu faqad ihtadaw yàlla wax ci ali imran aaya ñaar fukk mu ne ñi wedd ñi su fekkee ne bi jébbalu nañ ci yàlla nekk ci diinay islam jëfe li yàlla santaane bàyyi li mu tere kon jub nañ wa yazidu llahu alladina ihtadaw hudan maryam juróom ko juróom benn yàlla ni ñi nga xam ne dañoo jéem a jub yàlla da leen di soppi ak njub da leen di dolli ak njub da leen di dolli ak njub ci sootu kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda sootu kahf am na fa ay jeunes ay xaleel yoo xam ne yi ñu jara jàng seen qissa lañu ak seen taarix mboolem nun xale yi war na noo dellu ci alquran seeti xale bu baax nu muy mel seeti xale yu baax nu ñuy mel ak bu ndëngate amee ci seen jamono nu ñuy def ci ndëngate googee sama borom yàlla nett la ci nett na ci yenn xale yoo xam ne seen mbir mooy waa asxaabul kahf yàlla ba mu leen di nett li dafa wax ne innahum naka xale yooyu fityatun ay xale lañu yoo xam ne amanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom yàlla wa zidnaahum hudan ñun yàlla itam nu dolli leen ak njub kon nag soo bëggee yàlla jubal la soo bëggee yàlla dolli la ak njub ni ngay def yàlla wax na la ko mooy gëmal te jaar ci yàlla jaar lu bàyyi li mu tere loolu rek la mbokk jullit yi loolu mooy maanaam gëm ab dogal yaakaar naa ne liñ ci wax leer na te itam dafa maa nuru ne bu fekkee leer na xëy na kon ñu wax as def lu tuuti rek ci baatu baatu ak njub baatu ak njub ci alquran dafa am ay maana ay maana yu baree bare balaan cee ñëw ab dogal a ngi noonu gëm ko itam ab ab dogal nga noonu mbokk jullit yi gëm ko itam ay attema nga noonu ab jullit nag am na ay njëriñ yu mu war a mën a jëriñoo ci ab dogal su fekkee ne bii gëm ab dogal leer na mën nañoo jublu ci jeexal waxtaan wi te jeexale ko ci yan njëriñ moo mën a bàyyi koo ci gëm ab dogal gëm ab dogal ëmb na yii di ñëw ëmb na xam-xamu sa borom yàlla ba nga xam ne bii lamb na lépp te dara dogalewu ko te ajuwul ci jamono amul ci barab bu mu yem xayb wala shahada du ko dogal xam-xam yàlla bi nga xam ne bii dara rëccu ko yàlla daa xam li weesu xam li teew xam li jublu si xam gu ma sëkk gu làmb loolu ñëw na ci gëm ab dogal ba tey yàlla daa man lépp yàlla moom dong ak kattanam gi mooy amal lépp lu am su dul kattanu yàlla dara du am te ci kattanu yàlla la lépp di amee alaa lahul xalq wal amr yàlla dong mooy sàkk mbir yi mooy sàkk tam mbindaafan ba tey ci gëm ab dogal daan yi gisa néew doole ak lampañ gu dal doomu aadama néew doole goo xam ne gi yëmul fenn néew doole goo xam ne gi àgg na ci sa borom yàlla faw mu continuer di tëbb doomu aadama bi ak am aku continuité wala doomu aadama daal di far niw rëdd yàlla bi mu sàkkee doomu aadama ba noppi muy xéewal gu njëkk gi ni'matul ijaad daf ciy teg xéewalu ñaareel gi te mooy ni'matul imdaad ni'matul imdaad mooy yàlla bi mu la sàkkee ba nga am day continuer di la tëbb ak am courant bii ci machine bi nii muy continuer di tëb lampe bii ak leer ba lampe bi di joxe ak leer ba nga xam ne booy couper courant bi ci saasi la lampe bi di fay noonu la sa borom yàlla continuer di tëbb doomu aadama ak existence ak nekk bu yàlla di téye tëbb googu benn instant doomu aadama duutu amati noonu la doomu aadama néewee doole su ko defee doomu aadama bu xamee néew dooleem googu xam kattanug yàlla ak xam-xamub yàlla gëm ab dogal loolu lépp dina jur ci ab xolam ak ñeme ak sax ci kaw principe ba mu war a sax doomu aadama bi gëm ab dogal day xam ne amul kenn ku mën a def amul kenn ku mën a dindi amul kenn ku am efficace ku mën a waral dara ku dul yàlla subhanahu wa taala amul lenn luy daal nit lu dul la yàlla dogaloon ci moom démb bind ko ci ci ci ci moom ci aloo ji mag ja kon ci kaw loolu aajowul ñuy ragal nit aajowul ñuy ragal mel ni mindaafan mu ngoog aajo ñu ragal kenn ku dul yàlla yàlla nag ñëpp da koo war a ragal def ay santaaneem bàyyi ay tereem mu ngoog waaye rek kenn ku dul yàlla aajo ragal ndax kenn ku dul yàlla munoo jàmm munoo ay munoo lor munoo njëriñ munoo def munoo dindi. ba tey bokk na ci njëriñu gëm ab dogal bi nit bi su gëmee ab dogal dana indi ci moom ak toroxlu ak toroxlu bi nga xamee ne bi yow xam nga ne xamoo dara yow xam nga ne munoo dara yow xam nga ne defoo dara su fekkee ne bii dañoo nettali ne daaw mbaa daaw jéeg Abdoulaye Sow dafay ñëwoon waxtaan fi aw waxtaan leeral fi am masala ci diine mu leer ci bopp yenn ci mbokk jullit ngir bëgg gu ñu bëgg diine tax ñu kontaan te loola ah di wax Abdoulaye Sow moom am na xam-xam ah wala mën naa leeral Abdoulaye Sow lu mu mën Abdoulaye Sow lu mu xam Abdoulaye Sow munut xamut jëfut mënoo sañoo xamuloo amoo taboo ñemewoo sooy woote lay woote loolu mooy melokaani jaam mënoo sañoo xamuloo amoo taboo ñemewoo loolu lépp lu feeñ ci doomu aadama ci ay melokaan yuy nuru melokaan yi mag xam-xam wala koomum alal wala koomum ruu lépp lu feeñ ci doomu aadama ci am-am lu demee ne alal wala lu demee ne nguur loolee dañuy bokk gëm ne xéewalug yàlla gum ko defal waaye kat du njàmbaaram wala fi dañoo wax ne suuf bu sutee dañ koo jal boo fekkee fii suuf soo xam ne daa da dafa tunde dafa dafa gën a sute fii suusu xóot wala fi nee nañu xamal ne foog tundee dañ koo jal kon nag boo fekkee ab jaam mu am alal ju bari nga fekk ci wetam meneen moroomum jaamam mu amul dara ka am yàllaa ko jox waaye du mën a liggéeyam boo demee lekkee ko dàq liggéey fuuf gën koo nangoo sonn ci taxul mu am kon yow mi am yàllaa la jox yow mi xam yàllaa la xamal ka xamul yàllaa ko xamalul dëgg la nag du dindi responsabilité bi ñàkk xam ndaxte responsabilité bi mooy yow kat war ngaa jéem a xam soo jéemee xam te xamoo nag wàtt nga waaye jéem gi kat war na te boo ko deful kat yoonu safara xaj na ki kenn dem ci kanamu yàlla naa ko mën jàngaloo ma woon sëriñ sa nga jàngaloon mbaa ustaas sa nga jàngaloon man jàngaloo ma woon loolu kenn du ko wax yàlla léeg-léeg nga gis koo xam ne kii ab francophone la daa jàng français lool fort ci lool mu yaakaar ne diine ji moom jàngale ko ak garde ko ustaas yoo ko war def mbaa sëriñ si ñoom nag lii seen wàll xanaa toog wut alal yor ay bureau ew waaye ndaw ana ko séddale noonu ko séddale noonu wax ma rek sëriñ bi doon kër këri ustaas bi doon kër kër yi di jàng ba muy jàng yow francophone bi loo doon def yàlla doon jàng nasaraat waaw yàlla dafa bëgg jàng diine yàlla kay néewul bul jàng nasaraat ndegam nasaraan gi dina la jëme kanam ci wàllu diine ak ci wàllu adduna yàlla du la ko tere langue yépp yàlla leen wàcce xam-xam yépp